dal leen ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi dañu koy doore red ak musiba bi am démb foofee ca diwaanu Kaffrine nga xamante ni nag ab policier moom moo daal di dóor boppam bal pistolet daal di fay jaaree daal di génn àdduna mbir mi nag mi ngi ko def démb ki talaata ji foofee ca diwaanu kafrin ca biir néegam mu jël arme red di koy dóor boppam rek mu jaaree fa génn àdduna mu nekk nag mbir mu nga xamante ni tiis na loolu waaye kookee nag bu ñu ñëwaatee ba tey rek ci xibaar yu nga xamante ni am nañ ko ci moom moom brigadier en chef la foofee ci service commissariat central bu Kaffrine mu nekkoon nag élément ci trente deuxième promotion de l' nationale de la police moom nag mbir mi sax ba mu amee daal la ñu daal di ibbi ab l'enquête waaye itam sapeur fie moo daal di ñëw jël ab néewam yóbbu ko foofee ci l'hôpital bu Kaffrine moom nag ñenn ci ay jege ñaayam daal xam nañ que ku amoon taxawaay ci liggéeyam waaye itam nag ku am lente woon jàmm la ak ñëpp waaye ba tey nag mënuñoo dëgg-dëgg ana moo waral moom agent police boobee dal di faat boppam te ba tey kenn xamul ana moo ko waral dañuy dem rek itam ba tey rek foofee ca village bu Yoni Fore nekk nag ca commune bu Dalaye foofu nag sax daanaka démb ki talaata ji waxtu suba teel daal la askan wi daal di nemmeeku ni ko nag dafa am ay samba booy yu nga xamante ni daal dañoo armé yor ay gourdin ak machette ak ay arme à feu ñoo nag gaare la nga xamante ni moom moo di eh, seen oto marque Toyota daal di jël foofu lu mel ni sax ay jur waaye itam waaye itam yemuñu foofu ñoom ñoom ñi sax daal di ñëw ba attaqué ci benn boutique bu nga xamante ni daal commerçant bi mu ngi wékki turu bu ay dara dëkk itam ca gox boobee ne moom nag bi gars yi ñëwee sax itam daal di koy tàllal la nga xamante ni rek moom moo di seen arme laaj ko la nga xamante ni moom moo di caabur kof kofi bi moom nag dafa daal di bañ sax joxe lii di caab yi ci lañ ko dóoree sax ba itam yaramam daal daal di nooy nepp mbir mi nag sax itam gannaaw boobee ña nga xamante ni daal daal di réussir jël foofu benn saak bu nga xamante ni daal ca boobee bitig la nekkoon saak bi nag amoon na lu ëpp ñeenti million ci suñu ay koppar waaye itam sax ci la ñu soxee ay ball jëmale ko ci kaw daal di duggaat ki seen oto daw dem seen yoon mbir mi nag sax bi mu amee ba ñooñee daal di dem seen yoon daal la gendarmerie daal di ñëw ibbi ab lanquet xool dëgg-dëgg mbir mi ana lan moo ko waral itam sax ñu ngi ñuy xamal ni ki itam kii di gérant boutique boobee ab xaritam moom itam daal dañ ko cee daal di bi gaañ loolu ba moom sax ca poste de santé la daal di mujj mbir mi sax itam ñu ngi ñuy xamal ni que li tax gendarmerie yéex cee jot moom moo di daal démb foofe ci diwaanu dere nag foofe daanaka réseau bi dafa neexuloon foofu diggante 17 heures jëm 22 heures loole nag moom moo waral sax gendarmerie daal yéex nañ ko jot ngir xamal ko mbir mi nga xamante ni moom moo am foofe ne ci ay samba booy ñëwoon fa yóbbu fa àll bu takko takku. dañuy dem itam ba tey rek foofee ca diwaanu caaray wax rek itam ci wàllum def ñaaw téef wax itam ci jàpp ba nga xamante ni daal dañ fa jàpp benn technicien informatique bu nga xamante ni mi ngi wuyu ki turu SM Ngom moom nag li nga ko jàppee rek moom moo di sàcc lii di matériel électronique ndax nag moom police sax moom moo ko daal di teg loxo foofee ca place am moom nag la ko daal di feeñal sax moom moo di ab ordinateur marque MacBook bu nga xamante ni daal dañ ko daal di sàccoon foofee ne ca diwaanu Ceeskaay moom nag appareil boobee sax moom mu daal di ñëw ba foofee ca place am ca diwaanu caaro yi moom nag gannaaw sax ay investigation yu nga xamante ni daal ñii di yi def nañ ko daal jot nañoo fekk place am lopp daal fukki ordinateur ak benn yu nga xamante ni daal mu ngi dox waaye itam ak fokki ordinateur ak benn yu nga xamante ni daal yooyee doxul ak itam ñaari disque dur yu nga xamante ni yooyu yëpp daal ci bërëbam lañ ko daal di fekkee mu nekk daal moom ku nga xamante ni jamono bii dañ ko placé en garde à vue waaye itam jàpp ni daal moom dafa am ay nit yu nga xamante ni mook ñooñu ñoom ñoo lëkkaloo ngir daal di def ñaawteef yooyee ne moom nag mu nekk ak technicien bu nga xamante ni daal yenn saa yi dañuy nemmeeku ni que dafay def ay mbir njuuj njaay nga xamante ni dafay nax yenn ci ay nit ngir mën a yóbbu lii di seen alal. ñu daal di wax itam rek ba tey itam ci commissariat bu Grand Dakar gannaaw nag saisir corps bu nga xamante ni def na ko démb ci talaata ji foofee ne ci diwaanu Colobane. foofu nag sax lañu ñu daal di jàpp ab benn ressortissant ivoirien bu nga xamante ni daal dañoo fekk ci moom ñaari téeméeri ak fukk ak benn plaque yu nga xamante ni daal loolee drogue la moom sax daanaka drogue boobee mu doon andi daal nee nañu mu ngi gàllankoor xale yu bëree bëri rawatina itam mu ngi leen di yàqal lii di seen wér yaram moom waa gi nag sax ñu ngi ko daal di tegee di daal gannaaw buñ ko signalé ñu fekk ko nag ci benn jaaykatu café bu nga xamante ni daal moom foofee la daan taxaw eh, di waxtaan ak ñooñee moom nag ca bërëb bu jaaykatu boobee sax la daal di denc la nga xamante ni moom moo di crush boobee foofee saa itam am itam ab waaju nga xamante ni moom itam ab watkat la di ab nationalité ivoirienne moom daal kon dafa lëkkaloo woon ak itam yeneen naataangoom ñu nga xamante ni daal ñoom ñëpp saa su nekk rek dañ doon ñëw itam daal eh, di joxe la nga xamante ni moom moo di drogue boobee ne drogue boobee sax itam gis nañ ni que ay waajuru xale yu bëree bëri daal ñoo ngi doon xam ne ni que seen doom dañoo commencé woon am jafe-jafe ci seen wér-gu-yaram gannaaw jëfandiku bi nga xamante ni ñu ngi ko doon jëfandiku drogue boobee nga xamante ni saa su nekk rek dafay yàq xale yi rawatina foofee ci diwaanu Ndakaaru ci tribunal bu ndakaaru itam démb foofee ne dañ fa doon ab xale bu nga xamante ni daal daanaka moom mën nañoo wax ni que magam moo ko fa daal di andi ngir nekk nag ku nga xamante ni daal ab délinquant la moom saa itam bi nga ko jàppee ba daal di ko yóbbu ca kanamu yoon li mu yoroon moom moo di chanvre indien loolee saa itam daal liñ fekk ci moom moom moo di juróom benn cornet yu nga xamante ni daal cornet yàmba loolee nag moom moo waral sax ñu daal di ko woon yóbbu di ko àtte waaye itam moom mu am lu dul ñaar fukki at ak juróom-ñaar mu nekk itam benn doom bu góor bu nga xamante ni daal moom moo nekk ci seen famille boobee ne yenn saa nekk dafa daan jëfandikoo la nga xamante ni moom moo di chanvre indien boobee ne waaye ànd ko ak ay naataangoom di ko jëfandikoo moom nag gannaaw sax bi ñu ko jàppee itam daal kenn ci ay magam li moo xam ne rek moom moo di seen rakk joojee daal yenn saa ay anandoo yu bon det moom moo ko doon duggal ci mbir mii nii waaye nekkul ko nga xamante ni daal daanaka ku bon la loole nag sax moom moo waral daal gannaaw boobee ah, kii di avocat bi ko doon layal daal di sàkku ñu bàyyiwaat ko waaye nag loolee taxul nag benn yoon procureur nag daal di sàkku dañu daal di koy corriger loole nag moom moo waral sax tribunal daal di reconnaître la nga xamante ni moom lañ koy toppee moom xale bu góor boobee sax ba a àttekat bi daal di koy daan benn atu kaso bu nga xamante ni daf koy daal di tëdd ngir jëfandikoo lii di chanvre indien beneen mbir itam bu nga xamante ni daal atte nañ ko démb foofee ca tribunal bu ndakaaru moom moo di mbirub beneen xale bu góor bu nga xamante ni daal moom mu ngi wëkki turu Yrégle Guèye moom nag am lu dul eh, fanweeri at daal am magam moo ko daal di yóbbu foofee ca tribunal moom itam daal liñ koy toppee rek moom moo di menace de moor jëmale ko ca ña nga xamante ni daal ñoom ñooy ay magam rawatina benn magam bu jigéen bu nga xamante ni kookee ne daanaka léppam moom moo ko daal di yor ndax nag magam bi sax ci kanamu attakat bi li moo xam ne rek moom moo di at maanaam weer bu dee rek dina daal di jox rakam jooje lu ëpp quatre cent cinquante mille francs ngir mu daal di def ay soxlaam ci biir kër gi waaye tam nag yamul benn yoon moom xale bu góor bu saa su dafa ñëw tànkal waa kër gi waroon nag ñu daal di koy andi euh, foofee ne ca kanamu àttekat bi ngir ñu daal di koy corriger loolee nag sax moom moo waral moom xale bu góor bi daal li mu xam ne rek moom moo di yoonam nekkul ci kenn waaye itam sax moom mustatoon ña nga xamante ni ñoom ñoo di ay magam ngir nag mu bàyyi itam menaces yooyee nga xamante ni mu ngi ko doon amal jëmale ko ci ay magam waral nag tribunal daal di koy daan benn at bu nga xamante ni juróom benn weeru kaso yi daf koy tëdd ngir nag mën a daal di bàyyi yenn ci ay menaces yu nga xamante ni dañ ko koy toppee ñu wax rek itam dimb ca génn ba nga xamante ni daal mbokki kii di Fulbert Samb ak di Didier Badji ñoom ñëpp daal génn nañu janoo ko ak taskatu xabaar yi ñoom nag sax gannaaw sorti ba nga xamante ni Ismaïla Madior Fall mi fi nekkoon ministre de la justice amaloon na ko ngir wax ci mbir moomee ñoom nag li ñu bëgg rek moom moo di kilifay réew mi gën a bàyyi xel ci dossier boobee ne nga xamante ni ba tey jii nii xamuñu ana dëgg-dëgg lan moo faat seen i ñi nga ñaale ñoom ñag waral sax ñuy tàllal loxo autorité ya nga xamante ni daal ñoom ñoo nekk ci biir armée wi gën leen jàppale ci cadre boobee ne ñoom nag diñu jàpp rek moom moo di mbir moomee nag kenn kenn du ko bàyyi rek muy na saxee noonu waaye itam sax li ñu bëgg rek mooy ñu woo ka nga xamante ni daal moom moo di jëriñ gi ñu dénk wàllum yoon te mu nekkoon fii di Ismaïla Madior Fall ñu daal di koy entendre ci mbir moomee ne loolee saa itam daal moom moo waral ka nga xamante ni moom moo di DJ Badji moom jamono bi ay mbokkam daal ñoom ñëpp dañoo daal di maanaam jaaxle lool. ndax nag moom DJ Badji sax gannaaw bu mu génnee àdduna soxnaam itam daal ne génn àdduna wala saa itam daal ay doomam jamono bii dañoo tumuranke loolu ndax amatuñu ndey amatuñu bàyyi waral nag itam daal ay jegeñaaleem bëgg rek ngir daal ay xelu doomam mën a daal. nar justice daal di def liggéeyam daal di xool dëgg-dëgg analan lan moo andi tooxi duna yooyee ne ñu wax itam ci kàddu ya nga xamante ni daal moom Abdou Mbow di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar daal dina ko yëkkati moom nag li mu gis te ci wàllu mbëkk mi nga xamante ni jamono bii mi ngi woy di gën a bëri fii ci diwaanu Sénégal li mu gis te moom moo di Ousmane Sonko mii di ilimaanu jëriñ daal mu waral moom Abdou daal di bind ab bataaxal yónnee ko ko waaye tam sax ne ñoom ñii nag comme que ñoo fi diggoon ndaw ñi situation bu baax daal nee nañ fexe daal ba maintenir leen fii ci diwaanu Sénégal waaye tam sax ñoom ñoo fi diggoon. ndaw mu nekk rek mën nañ koo jox la nga xamante ni daal moom moo di fanweeri junni ki suñu ay koppar bu ko defee rek loolee dina mën a wéttali ndaw ñi rek ba ñu mën a toog fii nii kii diwaanu Sénégal waaye nag ca booba jamono daal foofee ci diwaanu Mauritanie saa su nekk dañuy gis ay gaal yu nga xamante ni dañuy jóge fii ci diwaanu Sénégal waaye nag foofee ne la ñuy teeri mu nekk nag mbir mu nga xamante ni bu ñu moytuwul nag dina ëpp loxo ndax itam daanaka rek diggante semaine ba ñu ak semaine bii rek daanaka lu ëpp juróom-ñett fukki nit daan nañ leen di dellowaat si fii ci diwaanu Sénégal li ñu yéegoon ci gaal yooyu ne waroon dem itam ret foofee ci diwaanu Espagne ñi wax ci communiquer ba nga xamante ni daal conseil national de de régularisation de l'audiovisuel muy CNRA def na ko ñoom nag li ñu gis te jamono bii moom moo di yenn kàddu ak ay saaga yu nga xamante ni daal dañ koy nemmeeku ci série télévisée yi waaye itam ak plateau yi loolu nag moom moo waral sax waa Sénégal daal daal di dànkaafu ña nga xamante ni rek ñoom ñoo di kilifa yi yor télévision yi li ñu bëgg daal moom moo di loolee ne daal bañ fee amati ndax nag bëggatuñu benn yoon di gis ay série yu nga xamante ni daal dafay am ay saaga waaye itam sax am ay seen seen seen yu nga xamante ni daal dafa làmboowul ak suñu ay caada ñoom nag jamono bi ñuy dànkaafu rek ña nga xamante ni ñoom ñooy bind série yi waaye itam télévision yu nga xamante ni ñoom ñoo koy jàllale ba sax yenn débat yu nga xamante ni daal yenn saa dafay am ba à fin dafay andi manque de respect waaye itam sax dafay xaw a maanaam amee an anam bu ñaaw waral nag moom njiital général bi di Babacar Diagne daal taxaw temm nag ngir yooyee bañ fee amati wara nag ñu bind ab communiqué rek bataaxal ko ca ña nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum théâtre waaye itam sax ci télévision yi rawatina yenn émission yu nga xamante ni mën nañ koo jàppee ay émission politique te yenn saay nag dañ ciy gis ay ni di werante ba sax jëmale ko ci ay saaga ñu tëjee ko ret ak visite bu nga xamante ni moom ilimaanu jëwriñ yi amaloon na ko démb moom Ousmane Sonko démb na ki talaata gi suba teel demoon na foofee ci diwaan Touba waaye itam dem ci diwaanu Tivaouane xool yi ka nga xamante ni moom moo di xalifa général des Tidianes loole nag nekk visite bu nga xamante ni daal daf ko def en toute discrétion ndax itam àndul ak benn protocole bu nga xamante ni daal war na tax ñu bëri xam ne kat foofee ilimaanu jëwriñ yi dafa ñëw moom moom Ousmane Sonko nag ñu bëri jàpp ni daal tournée boobee dafa dem ngir sàkkuwaat ñaan eh, ci xalif eh, yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir réew mi waaye itam sax ñu bëri jàpp ni daal ndax Ousmane Sonko moom jamono bii amul lu nga xamante ni daf koy waajal ci réewum Sénégal ñeen mbirum politique mbokk yi mu noonu lii moo ko doon fës tey ci xibaar yi di leen jox dig dëgg suba ak jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi.